jëf mbokku internet Actubuzz TV jërë ngeen jëf Babacar ñu amati mbéte contentement baax a baax ñu ngi amati mbéte tey ñëwaat tey fi nga xamante ne naa ci côté banlieue bi mais tey ñu ngi ñëwaat tey fi nga xamante ne mooy ginnaaw ñu ngi ñëw fi nga xamante mooy ghetto te ñu seet fi nag benn jeune benn ndaw ñu gën ko xam ci Cheikh Daara le fils de père Mohamed Alla Diop tey doomu père Mohamed Alla Diop lañu seet si ah Cheikh Daara ñu dem fas yéene waxtaan ak moom tey suñu émission bi nga xamante ne moom mooy tudd émission wu jaar jaar xam nga ndaw du wees am nga émission bu am solo taay dëkk bi nag <laughs> def na bam ci town bi gars yi bari ñu koy suivre fii ci Actubuzz TV waaw di wax ne loolu ak jamono ñoo ànd àdduna ak loolu presque ñoo nekk ku yàgg ci ndaw do fekk la ca mais boo muusee tuuti rek après da nga organiser sa vie mais seet daar nag beneen jàmbaar tamit ci biir jàmbaar yi ah <laughs> Cheikh ñu ngi lay nuyu di la waaw maa ngi lay ziar di la delloo ziar bu baax baax di la sant waaw di nuyu sutur waa Pikine nag. Mhm. waaw di nuyu tamit waa ginaaraa di nuyu sama waa koñ bu baax. di nuyu sama gars yi nii nii may nekk toute la journée chaque jour suba ngoon bokkandoo dóorandoo jugandoo yeewandoo ñooy defandoo lu nekk. Mhm. ñoo dundandoo tamit lu nekk. waaw di leen nuyu bu baax a baax di sant sama papa bu baax a baax di ko gërëm. di sant sama yaay di sant sama maam mi ma bàyyi si kër gi tama yar ma. Mhm. daf ci man lépp. te fi ñu nekk fii fan la Cheikh. waaw fii waaw fii fii mooy ginnaaw fii moo tax ñuy wax ginnaaw fii mooy xut bi waaw fii fii lañ juddoo fii lañ yaroo fii lañ màggee fii lañ defee lépp waaw. fii la lépp xewee. fii la lépp fii laa juddoo fii moom defe naa waxuma la fii sax Texaco rek boo fa taxawee rek boo ne Cheikh Daara rek. waaw kar gi leer na. waaw. dëgg la seet daara tey ñëw ginnaaw raay tey ñëw seet si benn jeune Babacar bu ñuy wax ki nga mooy Cheikh Daara buñ bugg xam te kan mooy Cheikh Daara tey lan nga ñuy wax kan mooy Cheikh Daara tey. <laughs> Cheikh Daara Cheikh Daara benn jeune benn boy la rek bu nekk ci biir koñ bi waaw comme li nga sànq rek ci biir wax yaa ma koy wax. Mm-hmm. nekkoon nañ xale waaw c'est boo nekkee jàmbaar nag dañ lay def dañ lay def defkat <laughs> waaw loolu la jàmbaar moom boo ko doonee rek def nañ la defkat te ñu dañoo nekkoon ay jàmbaar bañoon nit ku ñu yàpp mm-hmm. waaw loolu moo tax ñu ñu doon bañ lu bëree bëree bëree bëri surtout dañ doon dem sax boo waxee sax sama papa sax ndeysaan mm-hmm. dama xaa ah, Moussa na wax su demee fenn ba ñëw rek danaan wax cey seex fu ma toogee fii rek na naan sama doom ji bandi la wala sama doom ji la ma ne ko papa du loolu rek bañ ko ma yab rek. waaw loolu la bañ ko ma yab rek. boo bëggee dañoo soboon nag bëri jàppante yu bari mhm. du ko génn. Mhm. waaw loolu rek la moo moo taxoon mu demee noonu. waaw mais du woon dara. Mhm. waaw seen gis-gis pour ma leeral. waaw ay jàmbaar lañ rek moo tax mais du dara. dëgg waaw nekk jàmbaar bañ tey bañ parce que li nga xam ne léegi léegi dëgg la parce que town léegi jamono bii bañkat rek dañ lay dëkkal fa war parce que voilà mais am na àdduna muy toll nit mu ngay xeex indépendance am ki nga xamante ne muy bañkat dëgg la mais Cheikh Dar tey ci jaar-jaaram lan la ci dund yoo xamante ne métti na ko ak yu tar. tar waaw man dund man dund naa lu méttee méttee méttee dund naa lu doy waar dund naa loo xamante ni sax maanaam lépp du ma ko mën a wax fii waaw loolu leer na ñii nag may àndal wala mu leer xale yi sax fii boo leen laajoon fii niinii sax dañ lay expliquer loo xamante ni tamit sama yaay damay sóor sama yaay sama papa sax moom moo ma yar. moo ma yar te bugguma wax loo xamante ni day day bett sama day bett sama mère daal day toog toog ne mais dund naa dund naa lu garaaw garaaw dund naa lu méttee méttee méttee jaar naa fet fu méttee méttee lu booy di doon dund fii yëpp di ko géem ñun waaw sóomi nañ ko naan nañ ko ba pare ànd nag suñu ngoro ñoo ngi leen di dégg nag dañuy seetaan émission bi dañuy yeneen booy yi nii dañ leen di gis si TikTok beeg si yeneen ak yeneen yi ku nekk taxaw di wax nii nangam sangam mais nag amul njariñ daal. amul njariñ mhm. waaw lépp loo lépp loo yaakaar si àdduna rek lu góor di jaar du dund rek dund nañ ko live nañ ko ñoom mhm. live nañ ko te suñ technopole bii nii mhm. technopole bii nii nekk na suñu booy ñun ñu fi njëkk a taxaw si booy fii nii baraaka bi te lu ma lay wax nii maa sam benn gaan boo xamante ne ndeysaan fàlloo ah ñu ngi koy wax joo waaw ah, ñoo defandoo lépp lu ma lay wax ni kii si ginnaaw nii technopole bi ñun ñoo fi njëkk a baare garab <laughs> yàgg te boobu ñu ngi nekk booy de. <laughs> waaw baare garab. nii teg oto nii taxaw fors mm-hmm. waaw lu ma lay wax jóola keneen ki du ma tudd turam mu ngi si jiyal ba instant mu ngi dawal two years mm-hmm. sama gaan sama rak sama xarit. waaw di ko ñaanal bu baax yàlla na ko fi suñu borom jëlee foofu noonu Thièrsita mm-hmm. waaw sama gaan la sama waa la. dañ daan ñëw foofu noonu. mais gars yi ñoo leen jiir si loolu daal. géem nañ ko de. li <laughs> nañ ko naan nañ ko daj nañ lu tara dund nañ lu méttee méttee baan bi xam nañ ko peese bi xam nga dund nañ ko dem ak ñëw mais dañoo nekk suñu waajur xam nga ba pare nekk ak suñuy rakk xam nga même suñu rakk yi suñuy nawla lañ. waaw xam nga bëgguñu bëgguñu tu daal ñun daal dépassé nañ ko. wax dëgg affaire métti na su ma si toppaatee nii di si jaar jaar ni sama xol ak sama maam. sama maam moom sël moom a njëkk a mus a fekk koso sama maam sama maam bu jigéen boo ma ngi ne xale bu xale bu ndaw ñu téema di ma di laaj âge ñu ma laaj man âge bëgg ma defeere ma joxe âge majeur te boobu su ma joxoon mineur forbe lañ may yóbbu te su ma delloo boobu forbe samay moroom laa fay fekk te su ma fekkee samay moroom dund ak ñoom su ma génnee su lu ma nekkoon mun naa see delluwaat dëgg la mu retourné joxe mesure ñu yóbbu ma peese ñu ma yóbbu chambre 4 boo ma demee maa fa fekk samay ganaar yu baax maa fa fekk ay ndaanaan yoo xamante ne jàmbaar yoo xamante ni ñoo ngi fii nii biir Pikine bii nii ñoo ngi may dégg ñu seetaanee léegi bugguma sax di tudd seen seen tuur yi ndeysaan ay ay jàmbaar lañ samay ganaar frère yu baax ma demee ñu teg ma si code mhm. xam ma luy àdduna nii ak nii gars yi bon ñu ay jàmbaar ngi si biir ay champion nañ leen dimbali teg leen loxo mhm. ne leen dimbali bu baax ñu teg loxo. waaw te sama rakk tamit loolu nuyoo boobu maa ngi koy teg sama rakk muy Sambour 47. Mhm. mu chef de Sambour. moo nekk foofu noonu sama rakk sama deret boo asan mhm. waaw maa ngi koy ñaanal nag ndogal bi ni tegu si kawam yàlla na ko suñu borom teggi ak mbooloom ñu fa nekk. Mhm. waaw sama rakk la sama xarit la. waaw comme di seex wax léegi-léegi muy lu am solo parce que man nee naa yi bëri euh, kaso bi bëri na ñu mu defar ah, ñu bëree baree baree baree bëri mais bëri na tamit yoo xamante ni tey yàq ci li ci li nga xamante ne mooy ci yenn doomu aadama yi parce que tundu jeunesse ku ne jar na ci am na loo xamante ni dama naan euh, maanaam nekk ndaw la rek mais bu passé passé na tey tey ku xam Cheikh Daara xamoon ko ci jàmbaar ji mu doonoon ak am lum mu doon bañ am ay principe yoo mais tey saa boo waxee da ngay ñëw sa diggante ak sa maam sa diggante ak sa maam lan la woon. waaw man sama sama diggante ak sama maam xaw ma sama yaay. sama maam laa xam. waaw sama maam moo ma yar. Eh. waaw daf si man lu bëree bëree bëree bëree bëri mhm. su ma demee ba mel nii sax bay toog nii sax man dama koy sante grâce sama maam mhm. waaw mhm. sama maam moo ma yar daf ci man lu bëree bëri bëggul ma mer bëggul ma xiif bëggul ma mer fu mu toll nii nii nii rek daa nekk si ay problème lu ma gis ci ginnaaw raay bi xam nga loolu affaire de jeunesse temps booy image boobu lu mu nekk mag nii ndeysaan xam nga lu mu ci capturé nii moo ko xaw a sonal tuuti su ma gisee si biir ginnaaw raay bi kii anamu fu mu jaar ñëw nii jël. yëkkati xaas jox ma ni ma dama Tivaouane Peulh dama nga toog fii defoo fi dara ña nga sàngam dama nga àggali sa job foofu nii nangam. sama maam dafa sonn si man quoi. Mhm. te man lépp li ma mënti am. Mhm. sama maam la. waaw te tey yàlla dimbalee tamit. Mhm. waaw duma ko bàyyi benn yoon. waaw tax na nag ma ñafee def lu bëree bëri. Ah. man abu man mii sax dugg naa si gaal ndax garaas ko moom. barke alxuraanu karim boo ko laaja moom dina la ko wax sama papa boo laajee dina la ko ay raxam boo la ko laajee dina la wax tàgguma kenn grâce ko moom parce maa ngi dem di xam ne mooy âgé te demewul noonu te job mu may job business dugg fii jënd moto jaay fii pëtt pëtt xam nga day dam ba affaire dam ba yéex daal mu ne xam nga ma dem ba xalaat gis ko nu mu jëmee mag nii te dama ka war a tereel waaw waaw dama ko bëgg dama ko bëgg ko fay daal bor bi loolu loolu moo nekk loolu moo nekk sama xol nii te loolu moom mhm. su ma ko deful ba deew ba dee moom duma ko quoi mhm. bëgg naa jàppale sama maam trop trop trop trop trop trop mhm. wax dëgg fa yàlla ndax son na si man trop trop trop fu mu toll nii rek mhm. bu génnoon nii rek instant nii yaakaar ne problème bu gisee xale yi jaaxal fii rek day day dama ko koy wax dama naa ko mu mer dama nga tëdd nga noppalu jour bu ma njëkkee taxaw seet sama PC taxaw maa ngi moom ñu jàkkaarloo bët ak sama samay rongoñ tuuru laa xam ne foofu duma fa dugaat ñu toog mu ne ma seex mu ne ko naam mu ma man su ma deewee rek yaa may ñëpp nee nañ maa la yàq waaw te yoo xamante ne gor rek gor rek te man sama papa jàmb jàmbaar la champion la àdduna ñëpp ko xam du ma topp si benn alir boo xamante ne damay daw ba nga xamante ne xam nga doo xam xam nga fu mu romb man abu dama doon daw alir bu métti sama xam na loolu <laughs> booy xam nañ loolu de mm-hmm. alir kenn daanu ma doon dama doon dama da waay ma dama demoon ba dama doon toog dama doon toog di seegaat sama bopp ma doon wax ma man est-ce que man la man waaw est nit man dafu ma mm. dara wala ni wala nii nangam sangam mm. man dama doon toog di xoolaat sama bopp abu daf naa lu nekk de mm-hmm. waaw ndax milieu nag dafa garaaw du xam nga dañ naan ni jàmm pour ñoom boo jàppee nit rayoo wala nii nangam mm-hmm. non affaire par exemple di nga dund ay paf yoo xamante ne ay Thiès nan tey yéen may waxal xam ngeen li ma leen wax bu baax par exemple nga daw ali boo xamante ni nga ñëw ceene da xam ne fu business bu nga dund démb da leer na foofu noonu noonu mm. bakkan rot na fa waaw nañu bàyyi xel te àq day toppe waaw àq koy dund damay def yenn fee ak maag sama gars yi da leer na foofu mm-hmm. jàmbaara am na lu fi demee waaw wax na ko da ngay bëgg jabar xam nga da war a bàyyi da nga war a nekk si leneen dimbali sa ndey dimbali sa baay xam nga essence si yooyu lañ teg xam nga joob jéem am moonin xam nga lu ñu war a faj ñu faj ko lu ñu war a def ku ñu war a fatal ñu fatal la man laas ba may am booy bi comme booy bi nii âge mu am nii nii nii am na gaal kër gi kër gi nii dama fi ferek sama taaw ku may àndal moom laa ko tuddee Pa saa jabaram mm-hmm. laa 12 ans laa yor 12 coups l'âge douze ans. waaw boobu sama sama boobu boobu boobu sëy sëyagul boobu seen kër moo taxaloo fii nii moom bu seetaanee lu ma la dina xam fek sama grand mu ngi toog nii ñu ngi ceene vendredi la moom bu mu dugg see sax daa daw damaa tas rek di commencé foweere samay bal di def samay business rek mu ne mu ne <laughs> te la douze ans a boobu xale doo sama papa yëgul sama yaay yëgul boobu maa ngi toj temps bi kenn xamul instant ni muñ ma téewoon fii léegi yóbbu ma ci police bi da nga yaakaar ne Balla Gaye moo fa ñëw <laughs> sama koñ kenn nit mbindeef mënul taxaw ne Cheikh Daara moo def lii wala Cheikh Daara moo def loolu wala Cheikh Daara moo def loolu waaw jeunesse moom nga ko dox mais boo tool boo ko weesoo moom bàyyi nga seet leneen ni nii taluma leen loolu samay sama maam samay njaboot dimbali sama yaay dem sama papa dem xool nu ma def ak sama papa. waaw moom waaw ndax man heure sama rongoñ bu heure bu ma toogee ba sama xol tooy sama ma gëstoo rek damay damay mbëkk sama papa. tër na mu koy mbëkk ma xam ne sama papa mi nii nii war naa ko mën a fayal leneen fu di toog mais tamit loolu moo gën leneen ak leneen gis am na ñoo fa xam ne ñu ngi jur ay doomu góor jigéen di fi jur ay doomu yeneen ak leneen ak leneen leneen waaw ñun ay jàmbaar lañ dafa ne jàmbaar lañ man damay seetaan seen émission damay gis ay jàmbaar ngay invité ay ndaanaan <laughs> billaay walaay talaay ay ndaanaan ngay invité ngay toog ñoom ñuy wax ak ñu ñu lay teg lu leer bandi amul. xam nga la affaire li mais nag temps boo demee ba bañ ko la yab xam nga di xeex seen indépendance foofu lay gisee waaw. waaw ñun moom wax dëgg fa yàlla alors bu loo xalaat si àdduna lu nit di def lu nit di nit di këlam si si temps bi nii dund nañ ko. dund nañ ko du ma la nëbb moom loolu moom def nañ ko moom maag sama gaay la bilaay walaay. maag mais ci ci kaw ay fee yoo xamante ne tey xëy na suñu borom maanaam ay natt yu ma si te nga dem ci li nga xamante ne moo ci kaso et cetera mais ci ñu bari dañu dañu seex lu bari dañ ko doon dañ ko doon xew sa comme turam fu mu tolloon ñëw accusé ko loo xam defu ko. waaw. waaw dañ dañ dañ ma dañ seex ñu ma doon àndal nag man dama see ëpp tur yàlla moo defoon loolu. Mm. waaw parce que. loolu soom papa la bayra bi mhm. doomu diw lañuy wax man léegi la ñuy wax sama rakk yi nii rek doomu àll Diop mhm. magu seex daara rakku seex daara yi dañ naan eh, kii rakku seex daaral la mhm. ñoom ñu ngi may dégg léegi nii léegi la nii la ñuy toog ñu naan mais rak ginnaaw raay nu ma fi meloon yàlla yàlla suñu borom rek moo ko xam waaw mais mais maa ngi sant yàlla mais fee boo sama papa nag daf ma doon wax buñ la def loo buñ la jiiñee loo xamante ne dafoo ko teg fa sa bakkan wax jooju nag moo ma doon moom moo dem ba daf ma noo xamante ni. Mhm. boo ma dafee loo boo ma waxee loo xamante wala nga dugal ma si lu ma bokkul ne. Mhm. at police tribunal kay. maa ngi yow tribunal la a ji force nit du si mun dara. Mhm. loolu kese la mais du leneen waaw. la loolu mooy ku nekk rek ak say sa taxawaay ak si li nga xamante ne mooy ak ni nga mel parce que mais tey lan moo la gën a métti tey Cheikh moo la gën a métti. lu ma gën a métti suma laay gën a metti suma live wax dina ma diis trop trop trop bugguma sama papa mere ma quoi te te sama xarit la mm-hmm. waaw bugguma sama papa mere ma te bokk dafa diis quoi. waaw mbokk am na fu ma jaar ak samay mbokk am na fu ma jaar ak samay famille mm-hmm. waaw te loolu su ko waxoon su ko waxee rek. moom bu toogee rek daf may daf may même sax bu ma ko waxul daf may mere te moom bëgguma mu mere ma si dara ci lu ma weesu rek waaw weesu naa ko mais lu nekk sama kanam nii dama bëgg rek man sama paap sama paap damay nii sax du ma ko wax dara ñu daje nii ma moom nii sax mu nuyu ma ñaanal ma ni ma demal daf ma seex boo sonnee rek yow yow nga sonal sa bopp yow boo jaayoon gerte caaf sax gerte caaf boo xëyoon doon ko jaay ni da ngay dem moom daf may wax loolu chaque tout le temps. waaw mais lu ma metti biir biir ah, famille la daal. famille la dund mbedd mi. waaw nekkul lu ma si mbedd bi nit du ma teg lu ma metti parce que man mbedd boo man doo ma teg loo ma aatanul mm-hmm. surtout xaw ma la mm-hmm. non problème bi foofu la xaw même sax su ma la xamee boo doo ma teg loo ma metti doo ma man bànn def dërëm. Mm-hmm. nante ñu ñuy wax nan nii loo loo ñàng ma def musu sama deret nit musu koo tuur. nit musu koo tuur waaw man tax duma la xaar man balaa nga daan wax nangam sangam man maa firi kanif ndell la boobu ba pare songu la te boo taxee dama lay defaral waaw man loolu laa doon géem waaw te ñàkk ma woon kattan mais bëgguma woon ku ma yab boo xam ne boo ne bëri rek dama lay bisaab man man damaa taayal taxaw nii pour ñu bagaar man ba ma siy nekk taxaw nii pour ma ngi ñu fayat bagaar bagaar nii non non. sam dama ko doon bu ñu xeexee dama lay dóor ba ngay bëgg dee ndax dama doon entra damay entraîné dama am doole. waaw mais pire loolu lañ xam ginnaaw bu ñu xamee ne kii yow da ngay bisaab dina lay bàyyi. waaw nga xamee ne kii bisaab kat la dina lay bàyyi. loolu kese la mais lu mu mel sama laaf loolu la ko te tamit samay raq samay xarit lañ. xam nga waaw ba pare dama leen fonk dama leen fonk te ci biir famille su ma waxee loolu rek sam sama papa dina ma mere mais am naa lu ma met nii may waxee am naa naqar lu ma gën a met sama àdduna suma famille la jóge waaw gën a met sama àdduna suma famille te loolu bu ma si woon def ndànk sax naa si juum juum juum bu rëy waaw que nit moom boo demee wax koo bokkul bu loo yobee koso rek kooku son noonu la ah. waaw boo demee ba ñu nga bokkal deret mm-hmm. dama bëgg la dugal si yenn level yi bëgg la dugal si yenn mbir yi daal munatuma loolu rek lu mu gën a métti lool la munatuma lu ma la mën a bëgg daal mm-hmm. man bu ma bokkee yow boo ma fexelee rek dama lay bàyyi tout tranquillement yaa ngi nekk si mbedd bi laa laa yemale waaw loolu daal moo ma gën te période boobu noonu te loolu de am noon noonu mm-hmm. bu doon sama papa dundul te yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba si kanam kanam mu fekkee lépp mais bu doon période boobu noonu paa bi nekk fi lii daw nii kon yow du ñu xamante boobu maa si jeel bi parce du ma wax nit lu ma dul def waaw boo tasante woon ak moom nii nga ne ko gis naa sa doom nii nangam sang wala nii non abu su ma la waxee damay xaru léegi damay xaru noonu laa mel ay xam ñaari wax ñaari yoon ay nii nangam sangam moom mënu ko problème bi loolu ko wax mais lu ma mel biir famille la mais àll bi moom. moom nit moom waaw non dund lu ma métti ma non su ma ñëwee léegi ñu bokk business nga dund ma affaire fajar dama fajar damay ñëw sa gaal fajar dama naa la yee wala mu dund koog yow waaw nga koy yee wala mu dund koog yow moom loolu moom ragaluma ko moom mais lu ma métti sama àdduna suma famille la moom loolu moom waaw loolu moom métti sama life waaw. non mais ma met lu ma dund dafa lu ma dund sama biir famille lu ma dund bokk laa wax ma du dund nit doomu aadama lu ñaaw non non que man sama allure ma dama demoon ba benn essence samay allure bopp rek moo ma doy keneen doyu ma samay affaire rek moo ma doy ma lijjën sama bopp génn dugg mhm. génn dugg comprendre moo tax xam nga rek te man dama am te dama njaboot man abu abu waaw abu abu ma damaa njaboot samay raq ñii damaa bokk ak ñoom yaay ñii mu bokk ñoom pap mhm. te ñu ma bokk fu ma ma taxaw rek da ngay naan ñii kii ñii ñii lañ gën a gën a kii xam nga mhm. ba après samay samay rakku papa seen i doom mhm. waaw man damaa njaboot moo tax na ma war a faat rey sama bopp loolu rek loolu rek moo mën a dimbali parce que ñoom ñëpp buñ gisatul noonu buñ fi yàlla bàyyee man maa leen téye naa xol boobu noonu waaw su leen gisatul. am naa yàlla waaw am naa xol boobu te xam naa ne damaa njaboot. incha allah te loolu noonu. maa ngi si kawam du yàgg tuuti. dinañ déggante ci yeneen level la ñuy déggante. waaw yàggatul tuuti. waaw waaw ñoom maa ngi seen seen kaw bu baax a baax a waaw sama maam mu fi. sama sama taaw bu jigéen moo moom laa ko tuddee. Ah. man lépp lu ma am sama maam la. su ma amoon ay milliards moom laa koy defal. sel su ma ay milliards sama maam laa koy defal. mu taxaw. lépp abu jour bi ñu njëkk a dee doomu jël alalam séddoo ba pare ku nekk dox sa soox jour boobu bu ma ñëwee jàkkaaroo sama maam damaa jooy jooy met ma xam ne sama maam mi gor la waaw te man ki ma jur gor la. waaw rus naa di jël loo xamante ne lewul ma koy ñëw di ko teg seen di ko teg seen di ko teg seen loxo billaay walaay talaay loolu mais lu ma am suma maam la waaw di sant sama yaay bu baax da maa ngi déggante moom bu baax a baax di ko gërëm baax mu nekk tamit yaay bu baax bu mu juddoo ba léegi nu ma toll nii man sama yaay mosuma jàkkaarloo ak moom gis karaw boppam nii mosul am si karaw àdduna am naa yaay bu baax par fonk bu baax mu koy wax yaay maa ngi ñëw maa ngi sa kaw bu baax a baax a baax waaw ñaanal ma li des bëreetul sangu normal ah pare xam nga pour ngay fóot sey kulus xam nga say mbokk bu ñu la toppatul dëgg am na booy ma gis naa dóor nañ tëj nañ booy deux ans sama kanam mu dof yaa ko tudd mu tàgga mu daa génn tàggal ko ay sogom billaahi di nuyu di nuyoo waala deq waaw deq maa ngi koy nuyu bu baax sama ganaar la maa moom nekkoon nañ chambre kaat waaw moom di di nuyu tamit Mansour Fall. Hmm. Mansour Fall maa koy nuyu bu baax a baax mag raxam ñooy ànd waaw jàmbaar la jeex na ba pare. ndaanaan nuyu teg naa ko sot loxo waa campagnat bi yëpp. Hmm. di leen bëggee yëpp ak coach. ñu koy nuyu bu baax a baax a baax. waaw di nuyu sama gaay nag ma ne sama gaay dañoo géem nag. Ah, sama gaan bi ma lay waxee sama njool bi nii géem nañ sama c'est que ñun ñun suñu àndoon suñu àndoon lu tax ñun naqari woon néewal doole parce que dañoo foowandoo. dañoo dañoo def nii ànd. nekk xale yu ndaw ba tey ñu toll nii nii nii nii moo tax mais ndeysaan tamit di ñaanal waa ji nii nii nii moom tamit yàlla baax ba si kanam parce que moom jirim la waaw moom papa ji làqu na ya jàmbaar la yaa ji làqu na ba pare mu nekk champion mu di damala boobu di mbëkk moom kese jëlul alalul kenn gisuma si dara mu ne ma yow doo ma gis si dara di seex dégguma la si dara doo ma déggu si dara boo amee lu ko met day ñëw ba sama toog ma ni ma léeg-léeg man su ma amee lu ko met damay def direct billaahi wallaahi tallaahi man ñoom rek laa am aw ma gëw ma keneen waaw man parce que dañoo foogandoo dañ ko dund woon te su ma réeroon tamit boo fi boo leen fi fekkoon ñoom du ma rëcc fen waaw. waaw du ko bëggee bu baax di ñaanal yaayam fu mu tëdd yàlla na ko yàlla suñu borom xaar ak weeru koor bi waaw di ñaanal papaam fu mu nekk tamit yàlla na ko yàlla suñu borom kii woo ko aw jërëjëf Babacar jërëjëf waxtaan maag Daara xam nga suma waay la nag Babacar <laughs> Cheikh suma xarit la ndeysaan moom kii nit ku baax la yooyu ñoo ko doon dundandoo fii <laughs> ah, di ko gérer fii ah. billaay wallaay. Ah? ma ne ko métti na trop trop waaw du nuyu waa sama champion bi tamit aw tamit sama champion. mais gars dañu ko jël. gars yi ko doon jël di wiir wiir ku nekk di tëb naan nii ku nekk di dem fële mais jël leen ko ñu làmb. instant yii namm nañ ko de. waxoon naa ko. laamu ji paase nee naa ko lii nii nii nii nii gars yi la nangoo jël gars dañ lay daw <laughs> dañ lay daw. waaw waroon nga bàyyi affaire bi daw tuuti sax <laughs> di ko bu baax ndeysaan di nuyu yaayam bu baax a baax am na yaay ju baax yaay ju baax mm. boo xaman njaboote ñëpp xamul maa faalu bu ñu gisee sax faalu toog waaw yaay booy di la nuyu di la ñaanal di la yàlla bàyyi yàlla suñu borom bàyyi la fi ñu fekk nga fekkee lépp ci kàttanu yàlla incha allah rabi waaw waaw maa ngi waa àdduna di nuyu ñëpp ñëpp di nuy képp ku gis sama fan su papa rek waaw ñu ngi lay bëggee waaw di nuyu tamit sama gaay ku si mel Ndiaye Fall. Ndiaye góor gi Fall njool bi sama njool bi àndandoo nañ defoon nañ lu nekk ñu def jiil yi Pa Moussa moom laa tuddee sama taaw di ko nuyu bu baax du nuyu Rabi saw lu mu togg ma lekk ko bu ñu toogoon fii léegi bu la fekkoon fii léegi danaan la doo ñibbi bu wàccoon fii léegi léegi danaan doo ñibbi da nga ni ndogu ba pare doo ko dem damay ndogu ba pare ne ko lu ma neex laa koy wax dem sama yoon waaw di ko nuyu baax di nuyu xaadim dumbul waa daara ji ba booy tamit dañoo am dénkaane dañoo am waxal ma ko abo abo bu ñëwee expliqué ko bu baax booy ñun dañoo jaboot mbër yu ndaw yëpp su ñun lañ daw si te ñun nii lañ tool gis nga ñu toll gis moot ba boo comprendre nga boo gis nga gis nga booyee noonu noonu nekk fii nii nii ay ay ñoom baysal ay ñoom ay pene sax waaw moom yàlla dimbali na kooku moom nag bu mag la du yaaku mboom <laughs> mu ngi ñëw si kawam ku mbëggal ah Pape Diatta tamit am na combat booy maa leen koy nag maa leen dégg yéen a ngeen dellu rek <laughs> si kaw <laughs> loolu ci loolu amul benn problème waaw du nuyu sama tons tamit buur géwal mhm. waa ay ñoom naar mësay jaaga xam nga ñoom ñëpp maa leen di bëgg war raabi saw di ko sant di ko gërëm di ko xamal ne man aw ma fayam waaw li mu bëgg la may defal billaay walaay talaay li ma bëgg la di la sant di la gërëm nag yow moom borom baax nga dund nañ lépp ah, maa ngi sa ginnaaw yow loo xëcc rek ma dagg <laughs> waaw loo xëcc rek ma dagg incha allah rabi di nuyu waa ginnaaw rabi yëpp yëpp di nuyu sama maam suma yaay di nuyu sama papa sama xarit waaw di sama wasila tamit waaw sama papa mooy sama wasila bëgg naa ko bu baax big up nice jërëjëf Babacar merci